Seydina Ousmane defe naa yow jàmm gën nga dëkk te jàmm gën moom ku ko gis ku ko wax wax population wax ay jeunes te fan yi gis nañ jeunes yi ni ñu décidé ci dëkk bi par rapport ak lu ñu jàpp ne dañu leen koy teg te neexu leen ba tax ñuy génn di wane seen bopp jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñu yore pouvoir bi. waaw comme ni nga ko waxee du sax jàmm actuellement nii c'est international mu nekk benn problème boo xam ne depuis ay semaines moo posé ci dëkk bi avant tout may ñaanal yi nga xam ne dañ cee génn àdduna. yàlla yërëm leen xaare leen àjjana ma ci ñaanal tamit ñi nga xam ne dañ ci am ay gaañu gaañu muy civil yi muy homme de tenue yi yàlla may leen wérgu yaram waaw di masawu coono tamit ñi nga xam ne tamit jël nañ ci seen alal ndax lii olof Njaay naan ñiy gàmm ak ñi raas dem mbokkul waaw ñu leen ci masawu coono bu baax a baax a baax a baax ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ah ñun ñëpp ñoo gisandoo dëkk bi nii li mel nii léegi tellement nag koo gis moo ngi ñaan jàmm ñëpp ngi ñaan jàmm am ci dëkk bi ndax jàmm ci la lépp xaj mais ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dafa amoon lu mu waxoon mu ne wasalaamun allah man taxa xalxuda la paix avec celui qui suit le droit tey jii balaa jàmm am il faut dëgg am waaw ndax tey jii est-ce que suit le droit mooy actuellement nii y'a treize morts ñu koy wax sa njiitu réew waxul te bu France amee cinq more mu dem ak en pleine pandémie mille milliards ci première vague bi ñu dekkee sa ko nit ñi gisuñu fu mu jaar kenn xamul nu mu demee actuellement nii quoi qu'on peut dire comme ni ko waxoon si ta ko ay jafe yi nga xam ne askan bi ñoo ngi koy jànkoon jànkonteel seen njiitu réew gisuñu ko mu wax jamono jee passé gis nañ dëkk bi ñu ñi di dugg ci mbënd mi ñu jógee ci mbënd mi dem ci mbëkk mi booba léegi gisuñu suñuy njiitu réew wax yooyu yëpp nag bu feesee ci xol fépp day am mu tombeeg li nga xam ne mooy jamono ji mi problème mu Ousmane Sonko bi lépp boole mu nekk fépp comme ni ma ko waxee rek pour jàmm am encore une fois il faut ñu ñu jiite yërëm seen askan fexe tamit ba jafe-jafe si askan bi am ñoom ñu jëm ko résoudre bu ko defee jàmm mën a am waaw pour mu jàmm mën a am lool waaw maama yow it maa ngi lay nuyu di la ziar defe naa ne ku wax jàmm gën lamsaar ak caaro ak li ko wër dina la tudd nga fi am la fi représenté si wàllum làmb defe naa li am fan yi ci réew mi am na loo ci war a wax waaw jërëjëfe borom Touba onze bilaa bismillah nawal yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax du julli ci yoon dem bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu ensemble bi ñu fi toog nii ñëpp voilà li xew ci réew mi ak li am ci réew mi duma la ko nettali duma ko nettali kenn ñun ñëpp ñoo gisandoo waaw te ñu ngi koy jooy fu ne nag waaw mooy lu ñu reen wax rek comprendre nga waaw ci ñu nekk ci loolu lañ nekk mais dañuy gis loo xamante ni tey waruñu ko gis baa ñuy dégg loo xam ne waruñu ko gis waaw parce que ci réew mi ñu nekk la déggoo ñu ne nañuy taxaw suñu ndewi tey say gàdd seeni i jikko ngir ñu mën a ràññee ñan lañ mën a doon ëllëg ndawi tey ñoo mën a yor ëllëg réew mi te réew mi nii mu demee nii nii kenn amu ci part kenn waru ci wax kenn rek moo ci wax moo ci war a wax muy président de la république moo war a taxaw saafara affaire yi mu jeex ñëpp nekk si jàmm parce que fii réew la boo xamante ni soxla wuñ fi leen loolu jàmm. jàmm rek fi xaj réew sëriñ Touba réew maam alaaj Hadj Malick réew maam. limaamu ñeneen ak ñeneen. te ñoom bi ñu fi woote yëpp jàmm lañ fi woote. kon ñun jàmm jooju ci lañ war a xëy ji lañ war a gont. waaw ñu ngi gis nag ñuy taxaw di wane seen bopp ci dëkk bi dañu am naqaru xol kenn du leen ko bañal waaw parce que ku la téye ay at tëj la ci kër waaw yoroo lekk yoroo naan boo yoree sa famille loo leen di jox noonu la demee moo tax gars yi defuñu pour Sonko defuñu pour Macky Eh, ñun population bi lañu fi nekkal ñuy am luñ lekk di am luñ naan te loolu moo ñu fi bàyyi te képp kuy jóg ngir tax rek sa waajur moo tax te boobu léegi dafa yàgg te moom moo ñu mën a génne situation bi waaw bu yaakaar ni daa war a toog fi mu war a toog ñu ñu dee non loolu baaxul boo jiitee danga war a jiitu ba pare jiital ba di def waaw suñu Fall daan na wax bu am solo nee na boo yoree nit bëgg ko yilif da koy jox mu lekk jox ko mu naan koo joxul mu lekk jox naan mën na koo yilif te mën a koo yar te ñun nag ay ndongo Serigne Touba lañ jàmm lañ soxla jàmm lañ bëgg ci nu mu gën a gaawee wasalaam. Samba mayo mayo bi nga sol nii mayo jamonoy 2002 jamonoy Sénégal France ah Corée Japon Zamba Poésie lan mooy Samba Poésie. ah mais instant maa ngi lay ziar sax maa ngi lay dolli ziar mais loolu après ñu leeral ko mais instant bi foog ñu xam nga rek. waaw dama la koy waxee rek duñ nekk si nakar waaw dafa am lu ñu metti nga mhm. xam te ni metti metti képp kuy jeune quoi metti képp kuy jeune parce que tamit lu ñu ti wax ay nit ñoo dee du ay mala ah, yaa comprendre di leen jaale di masaw seen mbokk yi leen ñaanal yàlla yàlla xaare leen aljana te di wax ni tamit li xew si dëkk bi neexul kenn yaa ngi comprendre neexul kenn muy art muy kat muy mbër képp ku mënti doon yaa ngi comprendre te man dama dama gis ni que su dëkk bi soxlawee ñun yoon la ñun ñu ñëw taxaw mhm. ñi jiite yaa ngi comprendre ñi jiite xam nga ñu yëpp ñu bàyyi xel population bi parce que gars yi gars yi dañu sonn population bi dañu sonn yëpp boo ko gisee xam nga nit dañuy dem ak fugu dañuy dem ak fugu dañuy dem ak benn benn esprit boo xamante ni duñu xalaat dara yaa ngi xalaat dara te da ngay benn idéologie nit yi da koy comprendre yaa comprendre mais du tee tamit à chaque fois tamit ñuy wax di wax ni que man ñuy wax ñuy wax ni que ñun suñu suñu jeunesse ñun ñun ci jàmm la ñuy dox di ko si woote parce que jàmm si la lépp du mujj parce que parce que lépp loo gis da fu fu tôt tard si ay waxtaan lay mujj pour mu metti metti si ay waxtaan lay mujj parce que man tamit du ma du ma dëggal du ma dëggal benn doomu jàmbur na ko xam nga da war a da nga war a def lii te man xam nga sama raq bu génne man ko si biir wala dara yaa ngi comprendre du tamit du ma génn def lii wala dara yaa ngi comprendre à chaque fois tamit dañuy wax benn idée boo xamante ni tamit dañuy wax si loo xamante ni tôt tard nii si si jàmm lay mujj quoi yaa ngi parce que ñun tamit xam nga si banlieue bi lañ juddoo ci lañ màggee dañu am na ay nit yu xool si ñun xam moo tax ma ne occasion bi su su su taxawee du man ñàkk ma teewee ko yaa ngi comprendre pour man tamit sama grand bi nooree ni wax na lépp yaa ngi te di fàttali tamit ñi si dee tamit ay nit ñoo dee xam nga yaa ngi comprendre te ñu wax ne que gars yi ak lépp lu mu ti demee nañu wane dëgg nañu wane dëgg parce que population bi dañu sonn population bi dañu sonn wallaahi. mais ba lu tuuti rek ngat may ma tuuti rek benn rab bu tuuti rek ak ak ak ak situation bi nii rek som rek Samba yaa bindoon itam faw ñu tëggale ñaari boor defal ma loolu rek maa la ko ñaan ci Equivox TV am na amal teel micro bi nga am loo ma teel dama lay jox micro bi teel voilà amal loo ma defal rek Samba ay mën a ñàkk ay eh, yow xanaa xanaa ma ma créé dara rek. waaw créé lu bees ah yow itam. ay eh, yow créé say mbir di. sama réew Sénégal sama site jàmm gën jàmm gën fépp démocratie peace and love ñëpp a tolloo ñëpp benn lañ di woote jàmm si réew bi man si jàmm laay dox yaa ngi comprendre ak tamit si dëgg lépp luy dëgg nañ ko teg mu doon dëgg yaa ngi comprendre Samba Peuzzi Sénégal boy represent Africa wow waa jàmm ak xulle koo koy sàmba poésie yow tamit jàmm gën nga dëkk ah. defe naa am na loo gis fan yi te defe naa am na loo ci war a wax waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yenante bi di sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ di Mbacke alxuraan ñun ñëpp ñu koy santaat ndax moom lañu am xam nga affaire nag métti na waa maanaam métti na laa mën a wax dëkk bi kenn xamul lu muy niroon te saa su ne dañuy toog rek du gis lu nekk mais après xam nga dañ naan Sénégal bi fan la jëm ko quoi moo tax xam ñu ngi ñaan président mu jug wax te yàlla tax waaw mu xool tamit ëllëgu dëkk bi waaw di ñaan Sénégal jàmm waaw ndax jàmm si la lépp xaj waaw wasalaam. ba tey rek ñu ngi fi ah defe naa kii tamit ku xam si tax xam ko Abdou Seck. yaakaar naa ne doomu ndeyu Siteu yow itam defe naa doomu jàmm gën nga te jeune nga bu dëkk senegal defe naa li am ci dëkk bi nii itam am na loo ci war a wax. Mhm. waaw dina jëfe borom Touba rek jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga di masawu senegal xam nga si lii nga xamante ne nii moom lañ nekk nii mu métti trop trop trop trop mais amaana nii la ko borom bi tuddee te tamit ñun. ñun ñooy ndaw Sénégal te instant bi ñun ñëpp ñoo jug taxaw bëgg mais maanaam ni bëggee tamit ñun tamit nañ xoolaat suñu bopp parce que tamit bu ñu yàqee suñu réew suñu réew la ñu yàq ak lu mu métti métti métti tamit ñun ñoo moom suñu réew liñ bëgg nañ ko wax force de l'ordre yi parce que ñun ñoom ñun lañ fi nekkal dañ xam ni tamit ñoom ñun lañ fi nekkal ñun li nga xamante ne moom la askan bi bëgg ñu defal leen li askan bi bëgg moo gën askan bi téye fii ni xam di yàq di wër si tëli di taal di yàq yàq boobu noonu ñun ñëpp kenn àndu si parce que lu ñu yàq lu ne si suñu xaalis lay jógewaat parce que ñun ñooy fay courant ñooy jënd ndox te loolu yëpp si courant bi ndox bi lañ koy jëlewaat kon ñun nañ leen delloo si suñu xel yi bañ a yàq dara mm-hmm. si nga déggul ma la parce que ñun fii nii jaamu gan duñ nangu ku yàq mm-hmm. parce que xam la moo tax duñ nangu ku yàq mooy que ni maanaam tey jii nii fii nii ñun lu ñu mën di yàq tey jii nii ñun bu ñu yàq la ñun fan lañ jëm pour uti ji dara bugg dem mënuñu am essence pour dem kon tey jii nii tey jii nii kenn warul yàq dara mais li nga xamante ne ni moom la ñëpp soxla ñun jeune Sénégal yëpp soxla ko ñun xam nañ ko xam nga léegi nag force de l'ordre yi nañ ñu dimbali si loolu noonu est-ce dégg lu ñu soxla ñu defal ñu ko mais man damay woo ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy yàq bu kenn yàq na leen ànd taxaw taxawu Sénégal boole ko bañ a yàq parce que lu ñu yàq lu ne ñun ñoo koy defari jiwaat si suñu alal lay jóge man loolu laa amoon lu may wax xam di mosawu nag ñi si jot a génn àdduna ñëpp di leen jaale jaale seen i famille seen i ñëpp parce que lii dafa métti ba si kanamu yàlla barki alxuraan ñu génn ak ñu génnul ñëpp ñu ngi koy sentir mais yàlla bari na sutura di ñaan yàlla suturaal ñu defal ñu jàmm si suñu réew mi ñun jàmm la nga xam si jàmm la ñuy dox si la ñuy yëngu barki Serigne Touba amuñu nag lu ñuy ragal si suñu àdduna amuñu lu ñuy tiit si suñu life mais jàmm moom la ñuy woote barki Serigne Touba bu ñu yàq ñu bëgg ne leen dem ñu def ko ñu foqate ko mais bu ñu yàq bu ñu jël alalu jàmbur barki alxuraan ñun ay doomu gor lañ ku ñu gënul gënuñu saa déglu ma la kon ñun dañoo war a su suñu laaf bu gore ba dee gore bi nag mooy que ne ñun bu ñu yàq dara saa déglu bu ñu soxla alalu jàmbur mais li ñu yootu ñun na leen dem ñu jëlal ko suñu bopp si anam bi ñu ko war a jëlee pas ñuy jël alalu jàmbur ay jégalu ah. kii mooy taqe borom seeraas ah. taqee maa ngi lay siyaar yow tamit jeune nga bu nekk ci dëkk bi parce que te yéen ñëpp ku ci ne da war a wax ah, li ngay gis nii loo ciy wax yow en tant que jeune sénégalais buy liggéey. Babacar ñu ngi nuyu monde entier ndax xam ni àdduna am na lu leen metti Sénégal am na lu leen metti fépp fu doomu aadama nekk am na lu ko metti ndax ku si nekk du tourné gis lii Sénégal te Sénégal moo ëpp jàmm si dëkk yi mm-hmm. suñ tourné gis lii si Sénégal dañ am leen metti mais lépp nag si kaw ren la rek eh, njiit eh, dafa war di jërëm doomu aadama yi ndax peuple bi ñoo ko fi teg. bien eh, ñun nag man nag li may wax nii ragaluma ko man damay wax li nga xamante ni moo nekk sama biir xol. Uh-huh. ndax Macky Ablaye Wade bi fi nekkee bi mu ñu naree sonal. Uh-huh. ñun ñëpp lañoo mànkoo doon benn. Uh-huh. te biñ boobaa liñ bëgg dañ ko am. mag Macky mënul nekk ci dëkk bi nag. yee kilifa yi kilifa diine yi ñëpp ñaan yee mu ne du def. loolu tegu ko fenn ndax dëkku Sénégal bi dëkku jàmm la ndax Saint Antoine yi di yaakaaruñu woon dina demee dina dem ba yegg fii mais su yeggee fii nag au cause moom la ak dëgër bopp mais pour man waru woon demee nii waaw waroon na mën a teel a arrêté mais warul woon saa wax juy jóg waaw mais daal li may ñaan mooy libérer Sonko libérer Sonko waaw loolu daal laay ñaan man.